aouzu billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokkiñ bokkal liggéey sëriñ Touba bi muy tubaa ca kanam ñi ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke borom tubaa di dikk nag ci liggéey bi nga xamante ni si moom la Touba ca kanam liggéey ci mois de juillet 2020 bi di jégglu képp koo xamante si yaa ngi yëngu ci Touba ca kanam ci yeexaayu vidéo bi li ko waral nag mooy jaayante bii fi sëñ bi sas Touba ca kanam ci diggante bi ñu nekkoon ci moo tax vidéo bi xaw a tardé ñu ngi koy jéggulu di tuub ñu dikk ci versement yi commencé ko ci zone nationale Touba mois de juillet 45 millions 999 mille 750 Orange Money dièse 144 dièse 621 dièse 16 millions 311 mille 948 francs Mbacké ci Serigne Mama Fall mille francs Dakar ci turu Baye Serigne Bousso ak El Hadji Ndaw 7 millions 40 mille 050 francs Mbar ci turu Soxna Ndak Sey 70 mille francs Tamba Serigne Adama Niass un million Soxna Ndey Ndiaye quinze mille francs Kédougou Serigne Modou Lo quatre cent cent soixante mille francs Ngaay Soxna Maguette jiite cent mille francs Xombal Soxna Xuma Touré Serigne bay Faye galo Dieng deux cent trente sept mille francs Thiès Serigne l'Islam Sall Soxna Maam Bousso Mbacké un million quatre cent soixante mille francs Louga Serigne Moustapha Bassirou Mboup deux millions dix mille sept cent francs Daïra Babul Ayadi mille francs Kébémer Serigne Gora Sill un million cent vingt-deux mille francs Kaolack Serigne Moustapha Touré million huit cent deux mille francs Saint-Louis Serigne Rijal Seck Soxna ramafal Fall six cent vingt-cinq mille francs Goudiri Serigne Damba quatre quarante mille francs Joal Serigne Bassirou Thiaw cinq cent mille francs soxna May Mbakke deux mille francs Jifeer Serigne Ousmane Ndiaye cent mille francs Ross Béthio Serigne Aline Nying Serigne Dame Souran trois cent quatre vingt mille francs Bakel Ndiawara Serigne Cheikh Anne cent mille francs Weli Ngara Serigne Mbacke Gueye quatre mille francs Touba Belel Soxna Soda Diop cinquante mille francs Fouta Mohamadou Fadal Dia cent mille francs Bokki Diawé Serigne Talla Kane soixante mille francs daaru muxti soxna musli mbakke soixante mille francs bustaan jaw soxna naar jaw cent quarante cinq mille francs versement anonyme muy versement yi nga xamante ni si moo dugg ci kees gi te xamuñu ñu ko ci dugal xamu joxewuñ seen ay tur mu ngi nekk deux millions 334 717 Fouta Thiarène Serigne Mbacké Sène 250 000 francs Njàpp Ndal Soxna Abi fay 19 000 francs Mbour ci njiitul Serigne Mor million 130 000 francs CFA Tawa soxna Nogay Kebe cinquante mille francs Daaru Salaam Diouf Sëriñ Youssouf Thioune trois mille francs Mesere Sëriñ Mbakke Seck cent mille francs frais bancaires trente huit francs Modéri Serigne Bassirou Ndiaye cinquante mille francs Kafountine Serigne Njum Njëmb Njëmb Cissé deux cent mille francs Kolda Serigne Moussa Sène deux cent quinze mille francs Touba Ndiaye Mboro Serigne Abdou Thioune cent mille francs Ndjumbaan Maam Bousso Ngom vingt deux mille francs Koungheul Serigne Youssouf Souran mille francs jayante Askanu Rab Daouda Mboup juin juillet Serigne Moussa Diouf un million cent cinquante mille francs seetee li dugg ci suñu kees keesu Touba ca kanam ci mois de juillet 2020 ci zone nationale mi ngi toll ci 87 millions 445 mille 165 87 millions 445 mille 165. biñ ñëwee ci éclair éclairage domestique muy làmp yi nga xam ne moom la fi tubaa ca kanam indi woon di ko jàpp ndale nit ñi. ñi ngi ci am 1 million 690 mille francs CFA ñu dem zone Asie ca Chine mbokki murid ya fa nekk am na jaayante buñ fi indi bu toll ci 900 mille ñu dem zone Amérique Canada sëriñ Pape Amar 1 million 831 mille 300 Mexique Serigne dawuda Diak deux mille francs Brésil seriñ Cheikh Ndiaye six cent soixante mille francs États-Unis Serigne Sohaibou Seck six millions deux cent dix-huit mille huit cent cinquante francs total zone Amérique nekk huit millions neuf cent mille cent cinquante francs ñu dem zone Europe Allemagne Abdou Salam Faye

trois cent soixante cent un suñ boolee Europe gépp nekk onze millions trois cent trente deux mille quatre francs ñu dem zone Afrique Guinée Bissau Modou Atta Seck huit cent mille francs Afrique du Sud Serigne Mor neuf vingt quatre mille francs Gabon PAP 6 cinq cent mille sept cent francs total zone Afrique nekk deux millions deux cent quatre mille sept cent bi ñu boolee total encaissement ci mois de juillet deux mille vingt ci biir réew ak bitim réew Touba ca kanam encaissé na ci cent douze millions cinq cent cinquante mille quatre cent quarante six francs cent douze millions cinq cent cinquante mille quatre cent quarante six francs décaissement muy li nga xam ni moo génn ci gafak ak Touba ca kanam ci mois de juillet 2020 chantier Ndaam cinq millions cent soixante mille deux cent trente deux francs chantier université million 4 millions 797 mille francs chantier Daaru Xadim mille francs chantier Touba Ndiarème 8 millions 72 mille 667 francs chance daara yi maanaam liggéey yi Touba ca kanam di jàppale daara yi nekk ci dëkk bi 3 millions 817 mille 250 francs bu ñëwee ci poste de santé Kër Gol nga xam ni pare woon na 5 millions 289 mille 750 francs yi ñu fa def équipement la ak post pharmacie bañ fa defar ñu daal di ñëw ci poste de santé boo wéreel moom it yéen ñëpp xam nga ni pare woon na waane dañ ko doon équiper gën koo taaral ak poste de santé poste de pharmacie bañ def bañ fa def mu nekk 5 million 11 mille cent cinquante francs toilettes yi ci morgue bi ci kanamu jumaa ju mag ji biñ koy defaraat liggéey yooyu ñu fa yokk def nañ ci 192 500 francs communication commission communication 240 000 francs commission massification caravan yi ñu doon def ak yaatal ak yégle bi 858 750 francs charge fixe muy salaire yi nga xam ni ñiy yëngu ci Touba ci kanam ci administration bi ak chantier yi mi ngi toll ci 3 millions 957 mille 500 francs commission membre muy sachet yi ñu doon defarlu ak carte de membre yi ak bagage yu ko nuru 105 mille francs budget de fonctionnement muy 500 mille yi nga xam dañ koo teg ci bureau bi pour urgence yi ak yi ko nuru 500 mille francs li jëm ci ndoxum Touba mi te ñëpp tegoon seen bët pompe yooyu fi Touba ca kanam jëndoon mu toll ci ñetti pompe dépensé woon nañ ci vingt huit millions de francs CFA commission environnement huit cent quinze mille six cent francs commission logistique ci mai mois juillet deux mille vingt bi jënd nañ ci. pelle mécanique muy pelle boobu di tibb suuf si di ko def ci camion yi ci chantier yi ak benn camion vidage buy vider fosse yi ak ñaari camion ndox yu yóbbu ndox fi nga xam ni ndox mi egg gu fi teñ fas ko fa yéene egg yóbbu ak benn machine boo xam ni day mool ay pavé ak ay briques biñ dajalee loolu yépp mu nekk quatre-vingt-quinze millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cent soixante-cinq mu am benn ambulance boo xam ni waa Italie ñoo ko yónnee woon Touba ca kanam ci fray yi génnee dox bekk bi fay frais nañ ci six cent mille francs mission leeral Touba muy làmp yi nga xam ni moom lañ fi indi woon ba dëkk bi leer nañ Touba ci kanam da cee commandé waat mille làmp muy ñetti junniy làmp mu nekk million millions 500 mille francs li fi jot a génn ci keesu Touba ca kanam ci mois de juillet 2020 toll ci 240 millions 057 mille 511 francs li fi jot a dugg ci mois bi de juillet 2020 nekk 112 millions 559 mille quatre cent quarante six francs soo ci dindee différence boobu di cent vingt sept millions quatre cent quatre vingt dix huit mille zéro soixante cinq ci fin mois de juillet deux mille vingt keesu Touba ca kanam six cent trente deux millions huit cent mille six cent vingt huit francs moo fi nekk six cent trente deux millions mille six cent moo fi nekk. ñi ngi sant ñëpp ci turu tubaa ca kanam di ñaan yàlla liggéey bi gën a yemb gën a yaatu gën a baax sëñ Mountakha wax na ko day gën a baax incha allah wasalaam.